والقلم وما يسطرون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 turu saar yi saar yi saar yi alquran yi ñu ko mag ñi daan waxee ci boole laan mooy baqara waxoon nañ ko gallaay mooy xaali imran njóogu mooy maida jigéen mooy nisaa yi baraan mooy taw ba maanaam di ma xool nag ba fàttee bind moom am na lu ko gën da ngeen di bind hmm? laan mooy bàqara waaw léegi léegi léegi buñ noppee buñ noppee danaa ko répété ci groupe bi ba mu gën a leer laan mooy bàqara gàllaay mooy xaali imraan njóogu mooy maida nisaa yi mooy jigéen baraan mooy tawba mbargaan mooy yuusuf birima mooy ibrahim raxdi mooy sóoratu raat hmm. raat mbargaan mooy yuusuf raxdi mooy raat njenge mooy këf fi njenge mooy këf fi lan bi mooy sóoratul anbiyaa yi xanka booti mooy anka faatiri mooy faa ndaak faa mooy baam baam waaw wasaafaati mooy baam jaal mooy yaasin jaal jaal yaasin jaal njombaan mooy daawooda bayaan mooy rahmaan bayaan mooy arrahmaan waaw musni mooy waaqeyaat musni musni waaw liif laam miim saat nuun musni liif laam miim nuun miim raashin saay nuun ara mooy waaqiat mikiyaal mooy waylun lil mutafifiina waaw waaw ñu dem mooy xafraan waaw ñu dem hmm? kaaf yi mooy njenge waaw déet amutul mareem mareem rek la ah, waaw buñ ci tuddul rek la ñuy woowee saar wa moom lañ koy woowee am na ah rek tafsil nag danañ koy wax fusilat waaw waaw raad raad rek raad waaw léegi ñu ñëw ci boole bi ci njëkk ci alxuraan ah ma ci hmm? laan mooy baqara waa xam nga xam nga xam nga tiim wax moom du fi ne may teen di wax bien sûr mais damay te dama koo tiim mënatuma koo tari dama koy tiim laan mooy baqara gallaay mooy haali imran njoogu mooy maida nisaa yi mooy jigéen njoogu nisaa yee njëkk ah dama bëgg rek nga xam ko bu ma ne baat sàngam ma nga jigéen rek nga wati ko lii amut njëkkee mujj mbargaan mooy yuusufa hmm? baraan mooy tawba waxoon nañ ko ibrahima mooy birima waaw birima raxdi mooy raad raxdi mooy raad raad alif laam raad rek raad njenge mooy kahfi <laughs> njenge mooy kahfi lën bi mooy sóoratu lën bi yaay moom soppikuwut xanka booti mooy anka moom it soppikuwut hmm. faatiri mooy faandaak waaw baam mooy wasaafaati jaal mooy yaasin njombaan mooy daawooda bayaan mooy arrahmaan musni mooy waaqeat mikiyaal mooy waylun lil mutaffifin hmm, sooraay soppikuwul buñ tudd rek buñ tudd ci nii rek saar wañ lay wooye moom la ñu ñu kon ñu dem ci benn boole bu njëkk bi def ci ñaar te bàyyi mooy bismillahi rahmaani rahimi rahi arrahimi arrahimi laaye juróom rahimi laaye juróom hmm? day yàgg ah. ah jaru ko lii gannaaw tur la gannaaw ab adresse la baax na bind bismil bind bind rahimi rek teg ca laaya juróomi yoon la ñëw ci alquran rahimi joo xam ne laaya moo ca topp juróomi yoon la ñëw ci alquran maliki fatiha alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim def laaya maliki fatiha juróom hmm? lii kay du fukk ak juróom lii ah, ah lii moom du ci boo dama koy wàññi nag <laughs> waaw déet lii lii rek laay lii rek compte lii rek compte li ci des compte <laughs> maliki fatiha allah siinaa nga suwara allah taxloo nga nam li suwara allah siinaa nga suwaraay waaw alla sinaa nga suwaraay waaw suwara surtout suwara yi suwara yi surtout allah taxaloo nga nam li ma dem li tun sira jaal hmm, li tun sira mooy mooy yaasin kitaabun kitaabun fusilat mim tansilun min arrahmani loolu leer na maliki fatiha allah nga suwaraay allah nga namli li tun sara yaasin kitaabun caatam fusilat mat na ay ca ñu dem alif laam mim zalikal kitaabu kitaabu léwru léwru mooy maas ko lonk waaw léwru léwru léwru pël la léwru mooy masque ak lonk bu weer di door a teru day lonk pël di ko wax léwru waaw kitaabu yi nga xam ne dañ leen a masque masque ab lonk lañ am ci alxuraan juróom-ñetti yoon la ci ñëw kitaabu léwru samaana ma dem ba noppi door koo baamu ah zalikal kitaabu ak yabluqal kitaabu yépp nga laan innama unzila alkitaabu damay dem ba ñëw door koo baamu waaye nañ ko de ah waaw zalikal kitaabu ak yabluqal kitaabu ak yabluqal kitaabu xatta yabluqal kitaabu ajalawoo waaw yëpp nga laan ngeen laan ngeen war a bind nag waaw yëpp laan innama unzila al kitaabu <laughs> <laughs> <laughs> waaw innama unsilal kitaabu ak xalaynal kitaabu yëpp lan xam <laughs> unsilal kitaabu ak xalaynal kitaabu yëpp laan yëpp lan xam hmm. lan xam waaw waaw waaw ay yulqee ilayka alkitaabu ay yulqee ilayka alkitaabu yaar xalayna alkitaabu waaw an yulqee ilayka alkitaabu yaar sumar a kahfi waaw jeex na wa wudi alkitaabu waaw mooy sumar ak soore sumara kaafi waaw kaaf si xasas xasas ay yulqa ilayka kitaabu xasas waaw jeex na mal kitaabu wala liimaanu mal kitaabu wala liimaanu bàjjub suxruf bàjjub sooree bàjj mooy mujj sëñ Abdou Seck def si ay taani xaar yu am am solo dégg naa mbokk mu ko wax léegi ni lu mel ni dawre yi jox si nit ki ko doy si xam-xam yaakaar naa du yomb waaye nag mën nga koo ubbil ay bunt pour que su bëggee gëstu mu yaatal ab gëstoom li di àllaama boobu waxoon euh, Mouhamad ibn Mouhamad Fall ibn Moutal Shinqiti daa wax ni wa qaddimil ahamma parce que inna al ilma jam wal umru dayfun zaara aw tayfun alam dund gi moom dafa xat temps amul léegi nag wa qaddimil aham rek danga toujours dangay xool li gën a am solo nga jox ko gars yi ñu jël ko su ko defee al ilm moom mabniyun ala tadarruj ah. ngay yéeg rek di yéeg di yéeg ba keroog ngay ah, dajale yëpp xam naa suñu premier taaliq ci dars suñu sàll bi xañ na baatu ba ula rek parce que suñu Abdou Seck ñëw na si xam nga ula dañuy wax ni Maroc maanaam soowu bi nii ak penku bi daanaka noonu la ñuy séddalee mbind mi léeg naan la mashariqa léeg-léeg ñun la maghariba bu ko def buñ ciy génne ñoo am ñun ciy génne dañ wax ni toujours boo xamante si ni ñaari sëriñ yi muy ñaari kàngam yu mag yooyu ñu doon wax démb nga xam ne ay sëriñ lañ ci rasmu ak dabt ñan ñan lañ waaw ñoom dañuy wax ne heure bu ñu wuutee heure bu ñu wuutee ci masala lépp magaari ba dañuy ànd ak imam daani waaye lépp ci masaarif ñoom dañuy ànd ak abu daawud léegi-léegi nag am ñu nekk ci gox bi ñoo xam dañuy bàyyi daal yi dem fekki masaarixa loolu mooy war a nga gis senegal kaamil yi di wuute danga gis benn baat kii def nii kii def na fekk kii daa bàyyi lii dem fekk ñaneen waaye am na ci droit tax xañ na loolu natt na ko ba gis ni bee moom moo gën ci moom loolu tax ñu ne li ci yëpp dañ maghribun wa maghrib wa maghribun fi lixtilaafi yatbau li daani xaaliban ah waaye nag wa aksun yaqa heure bu ñu wuutee Maroc moom li sëpp mooy réew yi bu ñu wute li sëpp ñoom dañuy ànd ak imam daani wa tax wa maghribun fi l ixtilaafi li daani xaaliban li gën a bari xam foo am na am na lu ñu ciy déggee xaaliban waaye nag waa ak sun yaqaa léeg-léeg itam ñu bàyyi daani dem àndi kon loolu lu mat di bàyyi xel dana tax ngay man di comparer léeg-léegi euh, masala yi xam ne nit ñi am na fu ñuy dellu am na fu ñu wër gis masala yoo xam ne imaam daani daf si noppi maam danaa sakkata xanaa maam xam moom defu si benn commentaire moom da see da see su ko defee léeg-léeg nag ay dongam dugal seeni i xam-xam fekk am na lu si Abu Daawud wax ñoom ñu dem jëli loolu day faral di gaar mbind te kon ne xam ne ilmu rasmu xëy na bëriwul lool lool ay ay école waaye nag wuute daf ci daf ciy am kon yooyu dafay mat am solo ñu di ko bàyyi xel bu baax ci ñi xam dañuy bëgg bind bi bëgg copier bind bi wa maghribun fi l ixtilaafi yatbau liddaani xaaliban wa aksun yaqa kon safaan bi mën naa am toujours waaye ñu jàpp ne loolu mën naa am bu dee nag lu mel ni kii ula am na kii mel ni ula hmm? waa bàyyi waa bàyyi nag quoi lu mel ni ula itam dañuy wax ni ñaari sëriñ yooyu ñu wax léegi ñoom bi ñuy jàngale baat yi nga xam dañ ko war a bind yaa ñu war a soppi waaw ñoom baatu bu laa dañ seen noppi maam Abu Daawuda waxu ci dara imaam Daani waxu ci dara léegi nag ñi ñiy taalif téere yi nag ñoom bi ñëwee ñu gis joxe ci seeni xalaat waaye ñaari sëriñ ji moom dañoo noppi ci baatu bu laa ndax lan ku ne xam na ni baatu bu laa ahlun wahaat seen ay anzaar daf see wuute ñi dañoo jàpp ne cosaan bi baat bi minal ulu ci waaw la bàyyi ko ñii ne déedéet aliyu ci yàlla bàyyi ko xam kon comme ixtilaaf am na si ñoom dañ seen noppi léegi nag bu dee téere bi ñuy jàng muy euh, mawridu zaman bu imaam alxaraas moom moom daf dafa jàpp ni waaw la moo tax boo demee si téere bi bu ko moom daf ko fay tudd ah loo tax mu ne wa alxiqil ula bi haasal fasli bi katbihi yaan xilaaf al asli waaw moom wa alxiqil ula fi haasa al fasli moom da koo dugal si ñu jàpp ni cosaan li waaw la moo tax ñoom ñu dugal ko ci foofu ñuy soppee waaye yeneen ñaari sëriñ si moom imaam daani euh, ak abu daawud moom baat boobu dañ see noppi kon yow yaay xool sa gis-gis ak sa tàggatu si wàllu naxu ak zarf baat bi fan nga koy classé soo xamee fi nga koy kalaas nag léegi yow di nga xam fan nga koy fan nga koy dugal moo tax boo xoolee kii andi na ko ala parce que wute gi mooy tey bu fekkee da ngaa jàpp ni cosaanu gi nii la kon boo koy jàng nii nii ngay su fekkee nag da jàpp ni nii la gis nga xam ñaari bokkuñu kon toujours rek boo jàppee ni kii cosaanam du waaw kon tu vois nii rek nga def bàyyi ko nii ah. soo jàppee nag cosaan dañ ko soppi nag yaay ñëw fa nga def ko nii nga xam na nga ko delloowaat te yële mu dem cosaan kon boo xoolee am nañ différence moo tax ngay gis alxuraan ñu wax naa ala filar kon buntu baat la boo xam war des na si taxaw boo xoolee boo xoolee téere yi jàngale ras bu yëpp bu naagee si baat boobu dañ ci taxaw parce que dañ see wuute te ñaari borom ñaari borom ñaari sëriñ yooyu ma la wax ni la dañuy dellu si ñoom ci alxuraan adduwun si loolu moo tax muy muy muy muy mel nii kon ñu di ko bàyyi xel bu baax bu dee dars bi nga xam ni suñ saam joxe na ko itam lu mel noonu amaat na si am na mbokk mu ko laaj ni est-ce que bu fekkee ni ñun dañuy bind jox ko ñuy corriger lan la ñuy def ba tax ñu topp leen loolu laaj bu am am ci ci rasmu ñaar buñ ko waxee dañ ciy jublu abu dani ak abu daawud wane ni comme ni nga xam ne si hadis dañuy dellu cheikhaan ñu ne buxaari wala muslima ah, xam ne ay kàngam lañ si ba ñu bari dañ leen di diglu ndax ñoom daanaka ñu bari ñu jàngale ci wàllu rasmu ak dabt xaj na dañuy dellu si ñoom moo tax ñu tudde leen ay kilifa ndax ñu bari ñoo leen jàngal waxoon nañ la démb ni la Abu Daawud Imaam Dani moom moo ko jàngal saxiix bu ko defee li mbokk mi wax ci li jëm ci ki nga xam day day day concours àgg si baat yooyu nga xam ni dañu war def ixtilaas foofu dañuy bàyyi xel baax ni Imaam Dani ci boppam bi ñu waxoon ni heure bu wuute amee magaari moom la ñuy àndal moom dafa tànn ixtilaas bu kon kooku da xam ni kon point bu am solo la ci ñi nga xam dañuy corriger parce que loolu léegi la commencé wàññiku ci kaamil Sénégal waaye yaakaar naa bu njëkk ñi doon beq ñëpp daan nañ sàmmoonteeg baat yi ko am ci alxuraan muy juróomi baat yooyu bu dee li ñu tuddee taariya nag nga xam ne maanaam moom du si def dara kooku dañuy jàpp ni Abu Daoud maanaam moo tànn lool kon dèjà da ngay daal di am lu leer nga xam yow léegi li ngay def toujours di nga xam kan nga kan nga àndal imaam daani moom dafa d'accord si ixtilaas ñu tomb tomb bi si kaw kon day mel ni yow mi bokk si musaabaqa bi boo mënee bàyyi lool xel dana dana dana dana dana dana dana dana baax bu dee lu mel ni ishmaam ak ixtilaas moom Abu Daawud moom taariya la jël maanaam bu mu am benn tomb loolu dañ koy dolli ci dars bi nga xam ne si saam doon na ko wax loolu lépp day delluwaat si rek si wa maghribun fi l ixtilaafi yatbaahu gaaliban li daani gaaliban wa aksun su ko defee foofu foofu lañ ci taxaw ndax dars bi ni mu ko joxee leer na parce que suba incha allahu rabbi dana ñëw si dars bu ama am solo boo xam ne mat naa fekke parce que lu tax yi fekke gi baax ndimbal la pour nga gën a mën a gëstu waaye surtout concours bi xam dañu koy dëgmal te bëgg itam kenn ku si nekk mustawa bi nga am si alxuraan mu rafet loolu nga mokkal ko mën koo bind nga fexe ba la nga fay bind ñu ngi koy jox lu ñu am droit laal ko loolu nag li la koy may ngay assister jataay yi di xam lan lañu wuute waaye di xam li nga def itam euh, fan nga ko fan nga ko teg lu mel ni miim rek tey boo ko def nii nga xam léegi diggante bi xam daa waroon na am si diggante bi gaa koy def nii léegi dara feeñatul si diggante bi mën naa doon ak waaw itam nga xam dafa war a feeñ nii waaye fii amul bayaab xañ na xalima gi moo fees ba ba mu fatt yàgg naa gëmmu lañ koy wax ma loolu mën naa dal araf mën naa dal araf mën naa doon maska wax dañu intimasu harf aw shakl la kooku itam kii bind bàyyi ko xel bu baax a baax lu mu ci kemtulaay kàttanam parce que dafa yomb dafa xaw jafe ndax léeg-léeg da koy fàtte sax léeg-léeg gis mbind moo xam day rafet maa ngi koy fàttaliku daaw xuma daaw jéeg am na si koo xam ne daanaka loolu moom la ko gàllankoor loolu képp la ndax tolloon naa ak ñetti nit ñoo xam ni li ñu rawantee daanaka ci yu mel nii la mokkal ga rafet mbind ma macha allah kenn mënu koo corriger waaye mu am ñaari baat yoo xam daa gëmm képp taxañ na loolu problème bi mooy xaj na daaw ñu am jataay mel nii di ko leeralante ak nit ñi ginnaaw nag lañ xam nit ki nag normalement boo koy attee war nga ko mën leeral li nga koy attee pour a wax la ko su fekkee gis ne lii warul demee na mu laa lii kat ko parce que ñun dañuy partager ak yéen de lii dañ koy teg bu dul noonu nga ne ma eh sëñ seen affaire bi ñun d'accord uñ ko ñun ne yow léegi lan nga d'accord nga indi ñu teg ko bu fekkee loolu ma am xul la ñu bàyyi leen jàppoon bu fekkee nekkul ma am xul ah, ñu wéyee liñ jàppoon Euh, mbir moom du nii da nga naan nii la waaye du nii ba noppi nag naan da naan naan doo taxaw naan léegi nan la boo nee du nii moom nii rek la waaye du nii ba pare naan nan la loolu moom euh, xel nangu ko bi si dégg ñaareel bi mooy iltisaaqu xarf bi xarf xam ngeen loolu lu yomb la ñaari araf yu laalante loolu yomb na tey fi mu ne bu dee sama gaa yi nga xam ne ñoom bu ñuy xëcc yomb day mel dañuy reer ba suur ah. léegi boo ñëwaatee tàmbaliwaat fii waneen bindam boo ñëwee ba fii léegi noo def nun gi soit di ko bëtt jàll wala fi nga sànni nii bu ñëwee mën naa laal baatub law bi yi moom bu ñuy xool man xuma dañuy yor ay làmp xuma waaye daal daa mel ni lu laal morom bu jow ñu gis ko kon nag loolu mat parce que li ñuy topp daa bëriwul te dañ ciy concentré wu moo tax dafay aaje eh, ndimbal bu baax a baax nit ki xam li ñu koy toppee mooy iltisaaq xarf bi xarf boobu lu ñuy bàyyi xel la moo tax aji bind ji na si na si tàggatu bu baax waaye di ko jàngal ay dongaam itam te xam ne lu sew la mën nga parce que lii mën nga moo ko xam mën a bind doo ko bàyyi xel kon yii bu leeree si nit ki dana tax buy ñëw ci concours bi mu xam li muy li muy def léegi suñu problème si loolu nag mooy dañoo bindwul ay machine nag loxo la ñuy binde xam nga tey bu doon machine la moom mën ngaa teg cadre boo xam ni toujours rek yëf yi mën naa dem boo ñëwaatee tegaat beneen tracé duñ laalante waaye nag loxo boo xam da toog moom di rëdd moom il faut que rek léeg-léeg mu am nu muy demee waaye dangay fexe ba bu mënta ñàkk mu bañ a bari rek am na lu ñu siy xañoon nag yooyu moom boo ko doo ko wax gaa yi waaye am na ci yu am am solo yoo xam dañ la ko siy xañ boo ko defee ñetteel bi mooy tàqatañoo kalima fi satroseni da ngaa jël satar di bind hmm? yow satar gi fii la ñam nga ñëw ci la àllahum yarjiun nga daal di fi yar dafee jiwoon kooku moom gars yi dañ lay te parce que foofu ñoom d'accorduñ ko ab baat kenn du ko dagg moom kay yow yaay jéem a xool boo tollee fii yaa ngi tu yaa ngi toll yaa ngi jub fa bi ah xam nga fi nga jëm bu tàkkee rouge xam nga da ngay taxaw bu dee vert xam nga ko xoolal diggante bi rek bu fekkee bu fekkee xañ na bi nga def sa kemt lay kattan jëm ko fee xajal su fekkee xaju fii nga jéem a yaatal yenn baat yi ba sara segi mat ah waaye tàmbuli fii baat àggale fee baat yooyu duñ ko d'accord yéen ñëpp xam ngeen ay baat yooyu daanaka yorul lu mel ne ay xuruf mu kenn wax ko lu mel ne ay fii wala ay ila kooku moom mën ngaa am te fii fii dégg nga daal àggalee fee beneen kooku mën naa beru waaye baat moom kenn du ko xaton yi ñuy wax nag ku si am looy dugal si diggante bi rek eh, mën nga ko dugal ñu wax si kon taqtiu kalima fi nii kooku dañ koy tara ci maayir boo demee ci ay bi bind ñetteel bi mooy ibtidaaw kalima fi satr wa tarkiha loolu tam dafay am da nga sàmbuli lu ma wax ibtidaa kalimatin fi satarin wa taqwa. waaw waaw de ah de ah waxuma dañ leen bind de loolu moom loolu moom loolu moom duñ ko bañ waaye ñun. ñun bi ñu waxtaanee dañoo wax ne comme mbir mi dafa taaru te dañoo bëgg mu gën a rafet te gis na ni ñun lii la war a def ñu ni léegi nañ ko saxal léegi yow mi xam nag yaa am pas-pasu bokk nga jéem a sàmmoon ak lool n'est-ce su fekkee nag am ngeen ci ay génde ko ñu noté ko buñ ko yóbbaatee ci daayira bi duñ ko maas dañ koy bàyyi waaw waaye fi mu ne lool boo ko doon ci ay xool ci ay kaami dañ koy wàññi de kaami bi li muy bari bari bari boo ko doon xool ah déet loolu <laughs> ah waaw. loolu kii na leer na si yéen ah. ibtidaawu kalima fi satr wa kooku dañ koy tere ci maayir yi ci sikki mbind la bokk yi nga xam ne day ayibal euh, mbind. ñu teg si adamu muraat adadul noxaat yi ngeen baal ma adamu muraat adadil astur aywa taadil xuruuf am na koo laaj démb jalgati akthar min xamsi marat fi safa benn paas nga def si nga jalgati si lépp juróom yoon ñu ngi xalaat ñu ngi non wàññi ko maam benn safxa maam safxa bi paas bi xamoo léeg-léeg ñu jox la rubon boo xam ne man naa nekk ñetti paas léeg-léeg mu nekk ñeenti paas waaye benn safxa bi la wax benn xët nga jalgati si lopp juróomi yoon kooku dañ koy corriger te buñ koy muwaaxasa nekkul ni dañuy jëlandoo maanaam benn ba dañuy wàññi si benn ba wàññi si ñaareel bi wàññi si ñetteel bi si ñeenteel bi hmm? xam nga it bu leerul du baax nag ah war a leer si nit ki mu xam ko taadil xuruf akthar min xamsi marrat fi safa kon daal fexeel ba paas bi moom xët wi loo mën a jalgete jalgete xam naa bu doon mën a moom danañ ma jàpp lu bari ndax dama koo tàmm maanaam bind bind ak wala kaaf normal moom boo ko tàmmee daanaka da ngay jalgate rek di dem waaye ñu bàyyi xel bu baax ne lu ñuy euh, corriger la te lu yomb la nag su tegee adamu muraati adadil astur al muhaddada fi safa treize xam xët wu ne fukki bind ak ñett la war a doon maam xët wi fukki bind ak ñett la war a doon ah yaa ngi dégg mais ci biir musaabaqa bi la leen gis ñoo xam dañu def xanaa lenn rubu bi mat tax paas bi jeexul kooku moom fi nga fi rubu bi yem rek foofu ngay yem donte sax dangay ngay tourné bind benn baat tournel bind benn baat def sadaqallaahu al-aziim wala nga tournel bind sa ñaari baat waaye nag bul jàpp ni mukk def naa fukki bind ak ñett ñaari baat moom dese ngay naa ko wàcce si suuf loolu boo ko defee gars yi tey la am na ñu muy faral di dal kon nañ respecté ba fexe ba xët yi moom fukki bind ak ñett yin sart ni moom la war a doon li fi ak soppigul en tout cas daal sardaar la jox la sa nekk fexeel moom ba bëggoo bu ko dépassé parce que boo xoolee topp bi li tax muy yàgg yëpp ngay xool dañoo xool mokkal gi ba ñëpp maase ni mokkal gi tegu na saw yoon ñu doog a xool rasmul usmaani bi ba gis ni kii lim bind am na école yu mu dellu ñu doog a ñëw ci on yóbbul xat on yóbbul xat buñ ko buñ ci noppee day wër jaar si commission bi jaaraat si beneen commission bi ñu joxaat ko gars yi ñu xool léeg-léegi sax nga gis benn benn bind boo xam ni bu dee commission dañoo jox kii 30 points masalan ñi jox ko benn neuf xam nga kon léegi dafa mel ni am nañ benn dëgg dañ koy jaxasewaat ñu xoolaat ko pour benn neuf ak pourquoi 30 parce que dañoo war a tolloo loolu ay ay ay liggéey la yu maanaam yu sévère su ko defee ñuy jéem a respecté loolu bu baax suñu kéemtulaay euh, kattan. bokk na ci itam adamu muraat makaan nuqta aywa aw adamuha aslan kooku dama ko fàtte woon wala wala ñu wala bañ koo indi daal xañ na boo dama ko indaaliwul ah waaw nag maam nii rek maanaam adamuha aslan wala nga xam danga ko waroon a tomb tomb ko xam nga adamu muraat mooy lu tey lu mel ni ki lu mel ni tey anfusahuma xam nga xam nga anfusahum faa gaa ngi nii léegi makkaan bii nag boo ko fi tegul xanaa nga moyale ko nga teg ko fii wala nga teg ko fii kooku dañ koy dañ koy corriger lu mel ni bi azabim biis lu mel nii léegi xam nga kii moom moom kii ah léegi bañ bi ñaari tomb bi dañ ko war a séq la lay gis koo xam nag nii lay def day jël bii def nii léegi bii mu teg ko fii benn bi ñëw fii kii kum kii kum jóg kii xam nga kii demul ci kii ko tax a jóg te ñoom normalement dañoo war a séq naboro bi ah kon léegi boo ko tëgul ci barabam kooku da ngay am da am da am muskila moo tax adamu muraati makaani naqs maanaam tegoo ko si barab bi wala aw adamuha aslan wala yow si boppam sax yow da nga koo tombul sax foofu dégg nga ah? ah yooyu yëpp si la bokk des na nag li matul sax tuuti la andi waaye yooyu yëpp danga koy jàpp rek pour que mu nekk yu l'essentiel ayo ah, adamu muraat naqs mooy maanaam maanaam fi ñu ko war a teg makaan bi maanaam tegoo ko fi wala nga bañ koo tomb fa fàtte ko mooy aw adamu aw adamuha aslan ah. mooy tomboo ko tegoo ko fi nga ko war a teg walla tomb nga ko waaye tegu négul ci place am waaw si dans les si bëri si bu dee ni ñu moom moom laa doon wax kii xam nga léegi da gis ñoo xam ni dañ la koy dañ koy def nii xam nga bu taa bi nekk nii nga gis ñu xaw a def nii tuuti ah xam day mooy bañ bi ah. waaw. te comme maam jeexal nga daal maam fu mu yem rek maam li la jox moom fu mu yem fa mu yem fa nga bu fekkee àggagul bu àggee moom fu mu yem rek nee na bu doon benn bu doon benn bu doon yas limoona am na si ñoo xam daaw yaakaar naa yas limoona rek lañ yemoon sax dañoo tourné base bi dañoo yas limoona def sadaq lawla si loolu baax na non non boobu moom jotuñu si loolu. yooyu danañ si ñëw incha allah rabi. maa ngi xamul sa xam na waaye booy booy bind kay moom waaye li loolu kay bu doon loolu ñëpp bokk. waaye fa muy mooy. maam fa muy. waaw loolu moom danaa loolu moom bu xool. waaw ndigal li daal mooy bu ko xool rek. kii daa bëgg daa bëgg a wi muy duggee lay lijjanti rek wi muy duggee waaye xam na ni moom barabu barabu du xool gaay ak dégg nga yaa ngi si après nga ñëw si adamu adamu nazafat ban la mooy laalante gi waaw bu mu bañ a laal war a morom ji waaw boo ko tëbee jokkale woo kooku dañ koy tere loolu loolu loolu. waaye mais mais boo mais boo wàccee sartaal gi dañ koy topp. mais. yooyu dañ loolu lañ koy tere. dañ dañ koy tere li mu bëgg xam naa ko waaye loolu loolu lañ koy tere. maanaam daal nuun gi moom na dem. laneen li ñëw ñëw. yu yu bari. yu bari sax. Ah, eh. ñoo leer. da xam nga ko de. waaw ah, ah, nga ñëwaat. waaw bi ñëw. boo ko tëbee rek di nga wàcc sa eh, dina ci suuba mu ko laal xam nga ni ngeen deuxième satar gi ñëw nga bind daalikal dem nii kooku baaxul lañ koy tere maam maam faraax bi am na danañ si ñëw parce que maam affaire daa mel dafa jàll ah xam nga daa bu aw jàll la waaw léegi tanaa suq nag dañoo bëgg tanaa suq bi nag fii da ngaa dindi ab bëñ da nga mel ni nga fekk ba benn bëñ nga dindi benn bëñ walaaw jàll ah. kon leer na ah. après nga ñëw ci adamu nadaafatil xat wala waaw maanaam ñàkk setu mbind xam nga loolu lan la nga gis kayit wi day weextaal set tilimut waaye da nga xam ne mbind bi moom setut xoos na fële dégg nga fee sewal fee balankoo bu dul jeex nga xam dañuy mujj yow bu affaire ah, du rafet daal xam nga lu rafet xam nga ko boo xoolee sa mbubb mi nga sanc nii comme su bàyyi sos bi ni mel nii xam dañ xam ne rafet na ah waaye tey boo ko daaxoon rek wala wala loxo bi cëkk bi yaatu dañu xam ne mbind mi rafetul adamu nazaafatil xat dañuy bëgg mbind mi rafet da nga xam ne boo ne ko jàkk da ngay yëg taar bi ah waaw waaw loolu moom xañ na loolu yàlla moo dogal loolu na loolu looy bind looy bind looy bindoon bii moom laa ko jox maam kay boo wax yow kay yow yaa ngi nii boo waxee la nga bind kay léegi gaa yi gaa yi woole wan la ko waaw boo noppee wax ma ko dégg nga boo nappee wax ma ko après ñu jaa adamu nazafatil waraqa kooku moom xam ngeen ko këyit wu setut ah taq ñuul dégg nga wiccax daa ji taq fële këyit wu setul daal loolu moom xam ngeen ko adamu na parce que dañuy bëgg tam ah. waaw parce que moom gars yi moom ñoom ñëpp ay kàngam lañ ah da gis am mbind moo xam ne waa ji da nga naan waay waay kii waay si mbi kii lu ko tey jàll ay waay kii te mënoon naa jël yëf yi di waaye nga demaat ba si biir rek ndeysaan gars yi ni maa la asaf nii dafay dafay dafay dafay am waaye gars yi moom kenn sikki sàkkawul seen man alxuraan macha mu rafet bi loolu moom moom moom bu ngeen ci waaw chance bi day waaw am na si ak ñaan yi gaa ñaan de yi dañuy ñaan waaw ay Abdou Seck mii gaa yi dañ am na ñoo xam dañ ko yóbbu Abdou Seck ak sëñ Mbacke ak waaw sëñ sëñ Mbacke la ndax man am na bis ba damay topp ba mu yàgg gisatuma xam yëpp day am waaye mat na ko nag ndax ay jàmbaar lañ dégg nga adamu nazaafati waraka après boo ñëwee nga ñëw si li ñu tuddee ad adamu nazaafatil waraka ak adamu tanaasuq adamu tanaasuq mooy loolu ñu doon wax léegi maanaam xamoo tanaasuux dafa am solo si ah, ah, ma bañ a farli maanaam adamu tanaasuq moy adamu tanaasuq mooy mbind mi gars yi ñu diglu ah, am day téléphone maanaam mbind mi boo ko tegee mu nekk tracé boo boo ko jubee boo ko xoolee day wóor ni kii yax bi mbind mi di junna boo leen gis mbind moo xam da ngay tàmbali saataar gi ba mu yàgg nga yéeg yaa ngi dégg ba mu yàgg nga wàccaat ba mu yàgg nga weng jëm ne ba mu yàgg nga defaat nii ah wala safxa fi muy jeexee nga gis ni kii day ñëw yem fii nga xam ne boo doon rëdd waa ji fii rek la yem waaye léeg-léeg gis ko moom day ñëw fii jàll tuuti ah bii ñëw yem fii bii ñëw def nii bii ñëw defaat nii ah kooku tanaa suq amu ci dañuy bëgg mu am tanaasuux nga xam ne dafay am yax boo xam ne tey boo tracé si ci suuf mbind mi lay jub lu mel ni tey ah bu la neexoon saa yi li ma bëgg bañ a far loolu lu si nekk ah. waaw bu la ne loolu parce que loolu dama xam nga ay sew sew la ci mbind rek parce que mbind dañuy bëgg mbind mi mbind mi diju ndax fi ne nii yii nii bu amuloon gars yi ñu teg nii bu ñu ko amuloon maanaam daanaka première bi fukk mën nañoo ne fukk mën nañoo egg ko fi mu ne nii ah maanaam yu sew sew yi bu amuloon maanaam man ngaa teg daraja bi ñoom si sam ñi da nga si gis cent pour cent yoo xam ne moom doo xam noo leen di séparé da nga gis moo di cent pour cent Cheikh Matar cent pour cent waaye nag problème yii di am nag mooy tax yi di waaw ma ak li boobu moom am na ay ruux sax parce boobu tam boobu tam léeg-léeg booy tànn léeg nga gis ku mën a bind comme daan la man daaw jàlloon naa si tànn bu ma jëg waaye ren jàllu ma loolu li koy waral mooy bu fekkee da nga ni trente personnes nga soxla su boobaa mën nañuy xool mbind mu rafet loo xam da nga naan ko jàkk xool ko xam ne mbind mi mokk na rafet na xam nga kooku mbooloo mi day maase teg xam ne mii mbind moom lu ñu ciy sikki saak amul comprendre nga. léegi nga defaat noonu ba ba am lim bu ëpp nag bi nga war a soxla xam nga tey 30 rek nga soxla léegi yaa ngi 40 yoo xam ne moom macha allah parce que bi kenn ku si war a mën a dellu gën a amul léegi boo xam ne dañuy tarkiis nag si 40 yooyu nag doog a xóotalaat nag xool bi. est-ce que yaa ngi dégg. yëpp maanaam képp ku bind teg dinañ ko xool. ah, ah, ah déedéet maanaam gars yi xam nañ ko maanaam fi da ngay am dañ koy dañ ko def ñetti jàll day am yoo xam jayid la yoo xam ne kenn dañ naan bii jayid la am boo xam ne mumtaz la mumtaz moom ñëpp day maase ni bii moom kenn du ko laal ñu teg ko nii jayid mooy bi nga xam ne xañ na gars yi nee nañ baax na ñu teg nii am boo xam ne moom boo ko xoolee rek moom da ngay daal di lem rek teg ne da nga xanaa kii moom dugg na moom waaye lu fi indi nga du xam waaye duñ ko gaaw a duñ ko gaaw a sànni nag ndax alxuraan kenn du ko doy dal waaye dañuy xam ne daif la moom danaa bii moom na tegee ni ne ñu xool en attendant pour le moment yaa ngi dégg waaw ah waaw alwaan yi dana yooyu ñëw ne yëpp dana yëpp prévoir nañu ko incha allah rabbi xam na ko topp yëf yi ba mu jeex dañuy bañ jiitu waaye yooyu yëpp ñëw na ci ci maayir yi ñàkk jëfandikoo alwaan yi am na ci yuñ ci teg xam ne bu fekkee temps moo ñu gëmee waaye dana mën naa waaw dana ñëw mais yi andi wu ma yi des na yaakaar naa des na huit yaakaar naa quatorze la xaw seize dama doon bind mu fees moo tax complété tànq si kay yow naa xam sëñ bi ibti ah déedéet mu kalima yow da ngaa def yar dagg ko fii ah abba nga def ñëw fi daa def jiuna fii na da ngaa def da ngaa def yar xam nga dagg ko nga fi def yar jiuna leer na ok fan la ñu gën a diis yooyu boo ko waxee gars yi daa ñu ñuy fonk a ñu dul fonk da ngay bàyyi nag si biir maanaam yii nag am na yu si am na yu si tar lool yoo xam ne mën nañoo gàllankoor nit moom waaye am na si yoo xam ne moom maanaam lu tuuti la ay nisfu daraja la daanaka garaawut waaye nag am na si yoo xam ne moom daanaka rek moom mën na laa mën na laa xaarloo ba déwén ndax yooyu du ko jar voilà man fu ma tolloon sax adamu tanaasuq ah déedéet lu mel ni tey tey bu la kii tanaasuq masalan ah xam nga kii boo xoolee yaa ngi jël kii bi ah ah waaw waaw am na ku ko wax de mi ni mu dënga lu mel ni tey gis nga tey boo toppee yax bi nii ah très bi suuf gis nga tey boo ko toppee ah gis nga yaa ngi gis mu gis nga yax bi nga topp ci suuf wàccut. maanaam mu tegu ci ngaa bañ a bi ngaa bañ a yor sardar sax waaye en tout cas tey nag léegi yow nga. ak morom bi jaal bi quoi.

maa dama doon dama doon dama doon bind tàggalu ma ñu woo xam naa moo taxoon sax lépp ñëwul parce que dañoo wax ni. parce que ma comme bi comme dañoo wax Adamu Tanaaw sax baynal xuruuf ah dégg nga wal kalimaat xam nga yëpp ñëw na ah. wal kalimaat wal astur dégg nga ak saataar ah. moo tax bi ñu koy bind dañoo kii woon ah. adamu tanaasux bayna al xuruf wal kalimat wal asturan ah. nga xam ne tanaasux du si am si diggante bi dafay dafay dafay rafet parce que léeg-léeg nga gis léeg-léeg nga gis mbind moo xam ni léeg-léeg nga gis mbind moo xam ni araf yi day sore lu mel tey lu mel waaw mo bay na diggante araf yi rek lu mel ni tey nii lu mel ni di xaraf xamoo alif ah xamoo noonu ni lii xoolal laam gi lii lii xoolal lii xoolal lii ah xamoo xamoo lii te kii li ñu soxla mooy xam nga mën nañoo def nii kenn ku ne jël espace am te kenn du yàqal sa morom. taaw yi daal waaw bu la defee rek taaw yi wala yaatal xëcc yaa daal ah? maam nga lu ñu fi bindu ne lañ koy waaw Cheikh waaw ma bindal la lan sëñ yes tabe siroon saa yi teg maa bañ a tas saa yi waaw maanaam bañ am na bañ boo indiwoon rek expliqué yaa ngi maam bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee kalimaat mooy ni tey boo nee nii laahi xam nga laahi baat la ah. léegi xoolal diggante bi nga bàyyi lutul nii def nii arrahman bàyyiwaat fii diggante def arrahim xam bu dee xam maanaam comme ça day bañ baat bi yegg waaw lu si si nekk moom bu ko gaa yi tiimee danañ xam doodoora bi waa ji parce que nit ki moom léeg mu liggéey liggéey boo xam ne da yàgg fa mbéy woon ni kii nii la mënoon a def kooku moom tar tar dar di nga xam ne kii lii ruxsa lay laaj sëñ bi daa mel mi ngi doon gële est-ce que le Cheikh waaw yaa sab ma bind la ko waaw mën a man waaw man nag man nag bind naa maa bind naa kaamil nag man comme nii ah ñun nii la ñuy def ah. waaw. lii fi mu ne nii kenn ku nekk la tax a jóg yaa ngi ànd ak moom. yaa gaa ngi nii siin yaa ngi nii bëñ yaa ngi nii kii yaa ngi nii topp nañ la. waaw man maa maa bind nii rek waaw parce que démb waxoon naa ne la ñun am na si ñoo xam bu ñuy beqi dan naan lay yàgg ci suuf man naa sampu xaw mel lu taxaw am na ñuy jàngale noonu bu dee benn tomb la mu daw wara la man nañ laa wax ne day roon yi bu fekkee taa tombe la day roon mais am na ñoo xam tey boo demee jàngal leen loolu ñu ne loolu amul fenn mais am na ñoo xam ñu ne waaw nasar suba fii nasar gars yi dañ xoolal bu so waaw loolu waaw loolu loolu loolu mënees na koy xool parce que lu mel ni kii lu mel ni euh, ma xool waaw loolu day am dana faral di am parce tam loolu dañ ko dañ ko waaye nag loolu lu sew la loolu moom xam nga pour nga mooy loolu moom pour nga génn ko lu jafe la waaye mën naa gaar waa gars yi waa gars yi du yema def nang man maa sonn de waaw yastabshirun <laughs> waaw waaw léegi ku ñëw génne baag ku ñëw génne fu mu nar waaw fi mu toll nii fi mu toll bind nii tanaaso lañ koy jàppee parce que tam loolu tey man maa maa bind ne expliqué rek waaye tey man su ma doon concentré wu di binde yastabshiruuna gi man naa ko wàccee noo xam ne boo ñëwee dinaa mën a def nii bi nii amatin jàll mais damay joxe damay joxe misaal rek parce que tam maam dañu dañ leen di jox misaal dañuy jàpp ne yëf yi nekkul amul tasaddud maam tarul genn tar gi ba doo waaj lu def ñun la kaay waaye dafa am yoo xam ne moom dañ ciy taxaw nag ah mun ta ñàkk bañ a dar nag waaw ah, boo boo ko préféré defee ko noonu yow la sa kanam la ñuy xool rek waaw ba tey ça dépend rek nun nun nun nun nun nun gàttal mais yow mi koy gàttal di nga xam lan moo tax nga gàttal waa ça dépend rek. Ah. waaw ça dépend si yow rek maanaam fi mu ne bu la neexee gàttalal bu la neex waaye daal fexeel ma ba bu mu laal fexeel ba bu mu am tanaasux bopp parce que bu amee gars dañu koy gàdde. tomb yëpp dafa si ne ñaari yi dañ koy taxawal. waaw moom laa xaw moom laa expliqué dama laa wax ne la am na si ñoo xam ne parce que daa am loo xam ni euh, ñi lay ñi lay tàggat si bind ñoo la koy jàngal parce que niñ la tàggatee si bind ak man niñ ma tàggatee amaana mën naa bañ a bokk waaye moo tax man na si daara yoo xam dañ naan la yaa gi ci suuf dañ koy wàcce mu xaw lu samp mais lépp luy taa gu nekk ci kaw wala bëñ dafay ron loolu sax lool lool ñuy corriger sax mën nañ ko bañ duñ duñ ci bàyyi xel parce que ñun ñaare maanaam wuuteeg masaay wuuteeg madaaris ñun duñ ci intimaat maanaam dañuy xool li nga xam ne moom la règle lu bind wax rek waaw loolu léeg-léeg loolu léeg-léeg mu am si gaay yi loolu léeg-léeg mu am waaye doo tax ma ne la fi mu ne léeg-léeg nit ki dafay nekk ci xaala darura boo xam ne bu la wóoree ne waa ji mboolem norme yi mi ngi koy respecté dem ba benn moment nag benn baat baare ko benn baat boobu mënees na ko koo man ko koo jégal bu waaye nag bu fekkee da ngay liggéey ci wàllu amaana comme li ñu leen wax doon wax démb nga xam règlement bi lii la mën nga ko génne tegal koo ko ne muy benn point mën naa bañ a si naa bañ a saf waaye doon naa ko koy jégal parce que moomoo ko leer na waaw am na ci foo am nañ ci wax nañ dañuy bëgg ñu respecté alwaan yi kooku ñëw na ci moo yóbbul xatu yi. léegi kii doon na wax loolu rek loolu noonu maa fi muskila waaw bi ñuy déposé xam wax naa la ko bi ñuy déposé nee naa la waaw yooyu duñ ci doy duñ ci intimat yooyu moom ñaare noonu mel rek baax na waaw kay kay di ñu déposé moom souvent duñ si xool duñ si xool kii yooyu daal. waaw mais mais respecté ko rek parce que nee naa la am na si yoo xam boo bu ñu demee ba di si taxaw man ngaa dem ba tolloo kenn mu respecté norme yi su boobaa boo tollee si àttab segg nag ka gën a respecté norme yi moom mooy jàll. waaye dama la du mbir moo xam ne ci départ bi dañ ciy tarkiis ba bu bu ko nit ki deful dañu ne amaana du jàll man naa bañ doon saa yi kon léegi. waa waaw gis naa ko loolu da moo koy faral di gis waaye nag da si am loo xam ne tam boo ko xoolee man gis naa ko si yenn téere daa ngi ko am tey bu fekkee day def lu mel ni baax ah yaa ngi dégg mu ñëw nga am na si am na si nag laa wax am na ko am fii lay fii lay def tomb bi. xam nga tomb bi tey bu fekkoon da ngay yanu kii yanuwul dara walla kii moom normalement boo ko xoolee dangay xam ne kii amul amul fu mu amul fu mu téye baat bi. léegi ah comme def nii nii ah. loolu jalgati loolu. loolu jalgati loolu la rek. loolu jalgati la la. Ah. sa waay doo doo doo si doo ñaan. ah. ndax lii jalgati lay dal wala. ndax lii ci la moom lii kat lii kat jalgati la moom. suñ meeg lii ci la moom. <laughs> lii waaw lii. waaye lii waaye non lii moo lay dimbali pour nga mën a am bëñ bi rek. Ah. lii waaw ci la bokk kay waaw moo lay dimbali ci la bokk. si sam doo ñaan. ñaan maam bëñ daal xam ngeen ko gis nga sa gis sa gis bëñ bi nekk sa bëñ bi sa bëñ yi xam nga ni bu lonkoo baaxul bu jàddee baaxul ab bëñ daal day taxaw ab bëñ day taxaw wala bu ma xam nga war a yem ci yaa ngi comme ni ma yooyu ay soo soxla yooyu moom du ay yooyu moom du ay muskila yooyu moom yi gën a l'essentiel ngeen di xool rek parce que am na si yoom ñaar doo si taw ah. ah bii gën a noppale de moom bi ñëw bi ñëw ba a bañ bi tuuti. waaye bi am bañ bi parce que moom bañ bi la bañ bee ko yitte. waa gars yi du leen bàyyi màggal du leen bàyyi màggal màggali kii wala waaw dañuy dem ba suba ñu àggale ko 53 ah. du lu mel ni ila firawna ila firawna ah, ah ila comme bii def nii ngay wax. Hmm? waaw bu dee. la baax na mën naa nekk Ila boole. ah waaw xaj na loolu bu ñu demee ci rasmu dana am parce tam loolu xam naa ñaare daal li ñu gën a yitteel si yëf li si ëpp souvent xamoon nit ñi seen problème li si si dapp lay doon. li si liggéey bi ñaare si masque la doon mais ñaare li mu doon si li leen bind bariwul meen waaw parce que ay yéen da ngeen a bari ay affaire a bari ay moo tax gaa yi bari ay affaire gaa yi moom da ngeen a bari ay affaire moo tax gaa yi bari ay affaire parce gaa yi ku ne xam na ni yii boo ko deful nii moom nee la exego man ngaa gis ñi gaa yi bokk si concours bi ñëpp dañuy tolloo ah day donga daara lañ de waaw xam nga yooyu danga koy gis ci téere yëpp nag parce que da gis ci téere yoo xam ne dañuy def nii parce que ñoom yàgg rek lañuy ñuy fekkiwaat lu mel daa am ñoom dañuy def nii bu ñu defee nii ilaa ah, bu ñëwee nii la ñuy def nga xam léegi ñoom tey ñii boo leen doon génneel ñoom seen yaa nii lañu ñu koy def léeg nga gis nag ñoo xam dañuy def nii génn bañ ah. nga xam tey kii kii itam boo daggoon lii moom tam da nga fekkaat ak yaam moo tax boo doggoon lii nii boo doggoon lii kay yaa ngi yaa kii mën ngaa fexe ba doon yaa waaw waaw su boobaa itam su boobaa yaa ko séparé su boobaa itam yow yow boobaa bindoo ilaa yow itam <laughs> ah déet su boobaa yow it bindoo ilaa de maam kay boo daggeelee da ngay daggelee rek bu baree rek maanaa xamoo ko balangoo yooyu su baree day tax kayit du rafet ah waaye ñaare bu fekkee ni bariwul amul waaw xamoo da si am ay point yoo xam ñun taxaw nañ si parce que fi mu boo xoolee mbooleem ah mooy bi am kii bi nii boo xoolee suñu suñu masaahif yi ñu binde fii yu si bare bari noonu la ñu am loolu gis nga dama dem da gis yoo xam ne lu mel ni kii masalan masalan lu mel ni boo nee nii xamoo lu mel ni muuse ah? ngi gis fi am na téere yoo xam boo bind muuse ñaari bëñ la def daal def nii la leen gis ñoo xam dañuy indi ñetti bëñ yi ba pare daal def nii waaw boo si def na leer rek xam nga lindul nangu mooy lindul nangu mooy nga indi ñaari bañ fii ba pare fii indi fi bañ subaa da ngay boo da ngay mën a yëg lu mel ni wala lu mel ni yu sabbihu xam nga yu sabbihu dangay gis ñoo xam ne man na xam nga lu mel ni yu sabbihu ah xam nga dangay gis koo xam day def nii léegi kii boo xoolee kii manqué na benn bañ waaye tey su fekkee indi nga ñett yi ba pare na def nii léegi kii indi nga bésam léegi pour ñuy toog maanaam ñuy topp maanaam ñiy topp dañuy topp ba pare ba gis ne génneel nañ li ñu war a génne ba pare ñu xool nag ay nit ñu différent yoo xam ne bokkuñu benn école doo seet koo xam ne daal di région bu rek la jàng ngeen ko xool ko gën a rafet. doo fekk koo xam ni daara siñ buse imam la jànge nga ne ko seet doo xool njaarim la génn déedéet dañuy jaxase commission yi ñoo xam ne bokkuñu ay madaris tey boo leen doon bind bokkuñu ni ñuy bindee ñu ni leen xoolal leen ñu fii man bind ngeen jàpp nañ dëppoo na ak rafet bu fekkee juróom lañ bu fekkee ne ñenn dañuy seenu nattukaay te bu ñuy natt duñ bokk fu ñuy toog ñoom ñëpp bu ñu andee seen ay seen seen seen ay résultats ñu gis ni Modou mii daal ñoom ñett ñëpp gis nañ ni faraluñ ko xamuñu ko waaye gis nañ ni bii moo gën a rafet boobu nag mbokk boobu da boobu nag xam nga boobu nag loolu nag day notta loolu lu cohérent la nag waaye nekkul ni ñi nekk daara sëñ Mbàkke Soobaan rek ñooy xool sooba sa waa daara rek ngay xool xam nga xam nga ne sëñ Sàmmee boo ko doon xool kaamilu sëñ Gédé gépp lay génn parce que jàpp na ne genn gënu ko dàq bind ah, ah rabbil rabbil izza yow kay yow mi koy jalgati kay yaa war a xam fi nga tom nag maanaam boo ko jalgatee foo koy tom loolu mooy la loolu kay sa waaye loolu moom yow mi ko jalgati yaa xam fi nga koy tom rabbil izza de man jalgati moom bay bay xam fu ñu koy tom kon leer wal qalami wa ma